ñu seetloo jamono yu ñu toll nii suñu état doxalin bi mu amee rek dangay xam ne démocratie dee na Sénégal Sénégal amatul démocratie état de droit bi nga xamante ne nii tey jii moom moo taxoon ndaw wëngal këpp naw Sénégal tey jii mën naa ne suñu état de droit boobu noonu il est malade te ñun jeune ñun ñoo war a mën a tey jii taxaw suñu dëkk parce que dëkk yëpp tey jii dëkk yi defaru yëpp partout dans le monde defaru ñu ci ay négociation parce que trop c'est trop bu ñu demee ba bëgg a bafouer suñuy ba bafoué suñu démocratie dafa jot ñu am taxawaay bu mat sëkk pour dire no à cela je pense que loolu moom indi fii tey. ban message ngay lancé président Macky Sall mu ngi lay dégg. waaw li may lancé président Macky Sall mooy que dama koy wax mu def preuve d'élégance ndaxte na gore parce que dafa laaj benn mandaa de sept ñu jox ko ko mu laaj un second mandat da ko koo bañ ba ci livre bi mu bindoon en 2019 dani ngeen fal ma pour ma def mon second et dernier mandat. second fu mu amee pour ñu degg tubaab mooy fi tekki ni troisième amu fa donc il n'y a pas de place aux interprétations nul n'a le droit d'exercer plus de deux mandats. dafa amoon fii lu ñu doon wax M23. donc M23 boobu li mu taxawaloon lan la woon lan lañu doon xeex. la taxoon lo ñu doon xeex loolu amoon na bakkan yu ci wadd amoon na ay deret yu ci tuuru kon problème la woon te ña nga xamante ni ñoom la yàlla dogal tey seen bakkan wadd ci dañ doon xeexal seen réew dañ doon xeexal seen askan kon tey ji euh, M23 leen fekkoon ci seen biir bàmmeel dix ans que ñoom euh, instant bii nii euh, tëdduñu tàlliwuñu lan moo tax parce que lañ doon xeex ba ñu indi woon M23 tey jii loolu lañ fas yéene xeex moo tax ñu indi ñu indi F24. F24 bii ñu indi euh, Macky Sall dafa war a gàcceel F24 xam na mooy gàcceel F24 mooy que li nga xam ne moom moo tax F24 ñu dajee tey ji moom mu ni moom loolu demu ci muy troisième candidature am parce que tey way bu rafet la fi war a bàyyi. warul xool way bu ñaaw mu bàyyi ko ci gàkk ci ci deram parce que da ngay fàttaliku ni jamono bi nga xamante ni moom eh, mi ngi doon xeex di ànd ak waa Y'en a marre naan leen damay ànd ak yéen ci xeex bi ba mu jeex parce que dañ naan non à la troisième candidature de Abdoulaye Wade kon tey jii bu askan boobu wëlbatikoo taxaw ne ko a ah, yow lañu àndaloon doon xeex naan la no à la troisième candidature te bul ñu nax ndax avant 2019 dañoo voté ba pare nga xamal ne ñu benn bii moom moo ma dese kon tey jii say ñoñ ñi nga àndal bu leen déglu bu leen topp. jaar yenn ko si ba tax nga nga war a eh, nga war ñoo imposer l'impossible li gën te mu war koo def gën ci moom gën ci askan bi gën ci réew mi moom mooy mu organiser élection yoo xamante ni moom du ci bokk deuxièmement mooy que ni mu organiser élection yoo xam ni du ko jox kii di ministère de l'intérieur pour que réew mi nekk ci jàmm keneen ki yàlla dogal mu doon njiitu réew mi mu jiite ko te ñun dañu sàkk mu doon suñu honorable président Pape Djibril Fall mu jiite lii di euh, serviteur parti les serviteurs ci lañ nekk tey ci la ñu nekk ëllëg 24 ñi ngi fi tey ñi ngi fi ëllëg ñi ngi fi ginnaaw suba te dañuy ñaan bu ñu jugee ci manifestation bi kii di Macky Sall mu def déclaration am daan ni ma bokku ma bokku ku naan ma kaay bokk sama noon nga li ma fi tabax kenn du ko yàq. Macky Sall moo nangul adverse bu am adversaire ci seen politique parce que moom bu sañoon ni du am adversaire même bu nar a am adversaire mooy adversaire yi nga xam def leen tànn wala amuñu poids dëkk day am day am opposition day am pouvoir. ñun ñi ñuy copier ci ci ci ci ci démocratie wala ci doxalin politique wala ci état lépp c'est sur les européens tubaab yi ñoo ñu jiitu ci lii yëpp mais ñoom seen dëkk dafa am démocratie day am opposition bañ nañ ko même dañu encadrer seen opposant mais Macky Sall moom comme nu mu ko waxee képp ku taxaw nekk oppos opposant daf lay daf lay éliminer soit d'une manière directe ou indirecte waaw te du yoon xam nga moom Sonko c' est de un des meilleurs fils du pays peuple bi moo choisir Sonko. Ablaye Ablaye Wade jamono Abdou Diouf peuple bi moo taxaw choisir Ablaye Wade loolu day am ci dëkk day am ci jamono yàlla moo wàcce fi Sonko moo indi Sonko comme nu mu indi ñoom Serigne Touba ñoom Cheikh Ahmed Bamba wala ñoom yonente soisir noonu la soisir Sonko pour mu nekk l'un de nos eh, fils eh, l'un de nos dirigeants ou bien l'un de détenteurs de notre eh, destin politique te Sonko. loolu lay incarné deful Macky Sall dara. Sall na xam ne sénégalais pare nañ barke maam seex Ibrahima Fall Lam lu ko jaral benn jaral nañ ko fukk ñun dañoo pare billahi wala man Touba laa jóge Mbacke Bawol na maam seex Ibrahima Fall Lam mais grand grand Sénégal dafa métti grand grand Sénégal grand am na jeunes yoo xam ne grand ndekki grand buñ gëjee ndekki yàgg na barke Xaadim Rasool grand grand Sénégal moom met sunu yaay yi sonn sunu papa daw ba dee barke maam Seera Fall suñ moroom yi daw dugg ci gaal gi ñenn ñi dee ñenn ñi désespéré wu. grand Macky Sall ñun ñoo doon dem ci gaal gi ñoo dematul ci gaal gi di dee dee bi fii lañ koy deewee barke maam Seera Fall fii la ñuy deewee bàyyi nañoo dem ci gaal gi di dee barke Xaadim Rasool lum la jaral nag jaral nañu ko ñun. grand pare nañ de barke xaadim rasool billaahi wallaahi wa taalaay Sénégal fii sunu réew la du ñu bàyyi kenn mu di ko yàq billaahi wallaahi wa taalaay Sonko kenn du ko teree doon candidat loolu mooy Colobane day jaay daal barke maam Seyra Fall Ousmane Sonko du bokk si du yi élection moo dul am Sénégal te Macky Sall bis bu defee loolu buy génn Sénégal du sol daal barke maam jaara Poroxaan Macky Sall bu bëggee jàmm na bàyyi Sonko ñun jigéen ñëpp ñu ngi ci ginnaaw Sonko ndax bu bàyyi Sonko mooy Sonko rek jusqu'à la mort ñun ñoo yaay Sonko yi. ñu bëggoon nag wax dëgg yàlla Macky Sall mu dimbali ñu rek mu bàyyi Sonko hmm? mu bàyyi ko mu ko mu bokk ci élection yi nit ñi sonn nañ dund bi na xale yi amuñu liggéey dara amul lépp cher lépp lépp nekk cher na ñu dimbali dëkk bi metti na xeex rayante. dara jaru ko fi dañu dimbali rek dañu dimbali ñun ñu ngi jóge ba Wakaam Wakaam lañ jóge gisoo photo yi ma jënd nii Sonko ma ko jaral ah ma ne ma bëggee ma gisoo photo yi ma jënd nii ma ne gisoo yi ma jënd waaw ma Sonko ñu ko jaral ñaar laa ci jënd benn mi franc xam nga Sonko rek moo jar lool waaw waaw Sonko buñ ko naree tere mu bokk élection yi nag waaw est-ce que duñu seet ci yàlla rek ñu bàyyi ko mu bok ban problème moo tax Sonko warul mën a bokk nañ ko bàyyi ah est-ce fi ay doomu jàmbur di dee dara jaru ko fi nen ne nañ ko bàyyi mu dem nañ ko bàyyi mu dem après li ñuy def bu boobaa ñu seet nan lañu ñuy moom mais nañ ko bàyyi mu dem ñëpp loolu la ñuy ñaan lépp loolu la ñuy ñaan ñu xeexuñu dañ ko bàyyi rek mu dem ñun ñëpp lool lañu ñuy ñaan. maa bëgg Macky Sall génn réew mi loolu doomu moom métti bëggatuñu bokk ak moom dara dara Sénégal. Macky Sall na génn dëkk moo xam fu mu jëm na dem Gambie mbala Guinée Bissau mbala Mauritanie dem toog foofu parce que Macky Sall daf ñoo gàcceel Macky Sall dafa war askan bi li ñu si moom lépp lépp lépp lépp defu ko li ñu indil ay projet yoo xamante ne kenn xamu ko Sonko Adji Sarr ñaata at bu ko bëggoon atte atte na ko si benn fan dafa doy ah. dafa doy sëkk